di balu ak di bal ak ñëpp ci wéru koor bi di sant yalla bi mu ñu mayaté katan ñu ñëw fekke ci korité gi déglu bu baaxa baax comme ni ñu ko doon défé toujours njangalé yi nga xamni imam bi joxé nako tibé ko ci waxu yalla tibé ko ci njangalé yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu war ci def ay provision manam ay nai yo xamni dana danañu may ñu gën a defaraat suñu taxawaay gën a waajalaat suñu bopp ci àpp bi nga xam ni du jaas te mooy tase ak suñu boroom loolu nag war ñu ci suñu dund en tant que doomu aadama war ñu ci suñu dund ci suñuy diggante war ñu surtout ci ñi nga xam ni yore nañu ay responsabilité publiques au niveau de l'État